mu nekk demal mairie ba ñu euh, euh, laajte diw kooku dem ñu am luñ ko jox kooku woo ko nit gërëm ko ne ko waaye vraiment defar nga tabaski mu nekk ñaata lañ ko jox mu ne mu ne mu ne ma temps lañ ma jox mu ne ko ok ay vers suba ay 11h wala 11h midi nga defaat ma si kooku ay 11h avant mu koy def si maire ko woo envoyé waat ko li mu koy envoyé dolli ko ci liñ ko joxoon. muy benn waay laa ko bu nga xam ne ñoom dañoo association démb mu dëggal ko sama kanam di wax na ñun ci boppam bu ñëwee mairie ba du ñu yëg ci kaw moom mooy wàcc fekk sañ wax ñu li nga xam ne moom mooy soxlaam ma koy jaaree ñëpp nag euh, waa Tëngéej euh, bi ñu commencé ba léegi maa ngi jot ay message am ku ci mel ni euh, Abdou Tawféex bu awalee moom nee na moom ñàkk na nee na bro li ma ñak reyna Mar était un père spirituel pour moi il m'a tout appris euh Abdou Tawfeex bari nañ ci lool Sali euh, salinar commerce euh, euh, euh, commerçante bi momit it nee na maa ngi leen kay jall monsieur le maire moom du mag noonu mais non du mag mairie day épuisé nit du mag parce que ñoom ñëpp muy suñu papa di béy di sëy muy moom. quand même xajoon nañ fi nag ba ci kanam. père béy di sëy. Ah, ma koy jaane bu baax man sa waxtu bu jotee loo ci man. Hmm? wallaay ma ne sa waxtu bu la jotee loo ci man. kenn mënu si dara l'essentiel yow liggéeyal loo xam ne ni ëllëg moo lay wéttali te moom liggéey na ko te seede rafet na. tey jii la koy jébbal boromam bu 11h jotee sa dàngu. Hmm? Euh, ma koy jaale ñëpp nag ñoom Awa Diop ay te jaw ñaar ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ay ay amazone kon bu leen waxoon naan leen géej gi sax dañ dañ si leen jéema def lu man démb kenn mënu leen woon tey xam nga ay ndaw yu yu yu yu àndax détermination engagement si monsieur le maire Alioune maar ñëpp xam nañ ne Tëngéej commune bu Rufisque Ouest jokkul ñoom ñëpp dañ ko déggal donc ay ndaw yi nga xam ne bu leen waxoon taal leen marché ba ñu taal ko dëpp leen tali bi ñu dëpp ko mais su ko jëfandikoo kenn du mën a génn baaru monsieur le maire Alioune Mar ci wax bu ñaaw ci wax bu ñagas moo tax démb koo gis si si si si politicien foofu noonu. maa ngi koy gis sax député euh, euh, Souleymane Ndoye xaritam ñi njëkk yëg xibaar bi si la bokk. Mm. ñoom ñaar bu ñu daan daje si campagne bi dañuy mel ni kuy bëree mbappat kottante fii parce que moom loolu la xam ku mu gis daray kott fii xam nga boo yoree dara mu jël ko tooñ la dem. koo koy Alioune Mar amul xamul kàddu gu ñaaw xamul saaga xamul dàggasante xamul defante. moom def lu baax la xam ba ni mu xëyee dem. donc jaajal nañ ko ñu ngi koy jaale ñëpp nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Rufisque Ouest ak waa Tëngéej bi yëpp bu ñuy wax si moom duñ fi duñ fi jóg daanaka tribune yéene kaay fa la démarré li nga xam ne moom mooy euh, euh, xëy na ko fësal Alioune Fall Mar euh, njëre yaay code Mar lañ ko daan mbàkkee ndeysaan day gay moom rek moo ko mën a way démb kenn mënu ko téye dañ ko dugalaat ci oto yi sax yóbbuwaat ko mu ñibbi. Euh, nday jàng waykat bu man kenn mënu ko woon téye démb. Alioune Mar maire bu Rufisque Ouest daanaka dem na muy ji sunu euh, borom gannaaw ba ko jàngoro tëralee arène politique bu euh, Tëngéej daanaka nekk ci ak sëngéem ndax bokkoon na ci guy politique yi nga xam ne foofee bu ñu leen tuddee rek sa xel dafay dal. moom Alioune Fall Mar fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. bañ koo jiitu si bàmmeelam. xibin yële

Ah, ak fa tollox Louga ah, ci ab l'accident la ñu faatoo ministre de l' intérieur Jean Baptiste Tine mu ngay joxoñ baaraam dawalkat yi ne leen lu jiit njàkk yéen dawalkat yi yéenay njàkk mm. ah, sam benn doyen ma koy nuyu baax doyen euh, Fall euh, Grand Yoff man nag tur bi yëpp xam ma ko monsieur Fall ma koy nuyu bu baax ku baax nag ndeysaan duñu dañuy toog fajar gu jot euh, ma koy nuyu bu Mbayam Sow monsieur le maire madame la maire ma lay nuyu bu baax Mbayam Sow di la waaw wéy leen ma rek di ma yónnee seeni i seeni seen i seen i njaal pa bëgguma monsieur le maire ma lay nuyu baax l'honorable député Adja Fatou Sow euh, ma koy nuyu euh, moom it mu ngi ñuy suivre ñu toll nii waaw gars yi ñu envoyé message rek mu ngi may xamal ne ñu ngi nii di doog a génn Modou Fall Malika agence immobilière waaw ñu koy ñu koy ñu koy nuyu bu baax ñoom Vieux Balde ñoom ñëpp ñu ngi suivre alors pas bëgguma mu may xamal ne ñu ngi noonu di doog a génn ci margo bi mm-hmm. euh, monsieur le maire moom ci adjoint yi la bokk Euh, grand frère Massamba Ndiaye vieux euh, yow it ñu la koy ñu la koy jaal doomu Tëngéej ñu ko di ko jaal ñu leen koy jaal waa Tëngéej ñëpp ci yi mu ngay gën di sakkan nag Jean Baptiste Tine ñu dénk biir réew mi lu njiit njaak dawalkat yi ñoo di njaak lu njiit njaak ñii nga xam ne ñooy usager tali bi ñoom ñoo di njaak ndax ku si nekk am na ses responsabilités mm-hmm. l' accident yi si tali mm-hmm. ku si nekk na ses responsabilités da ngay gis dawalkat bi nag ñoom lañ ci ëpp lu ñu leen ci joxoñ baaraam ndax ni ñuy dawalee ak course yi ñuy def ci tali bi mhm. mais parfois nga gis kuy dawal ba si yàgg jàdd rek surtout si dëkk kaw gis benn charrette ñëw traversé gis mhm. ci mën lu ci ëpp da ngay daal ci kaw charrette bi mhm. wala nga gis koo xam ne mu ngi gàddu sayu mattam gisul li nga xam ne mooy oto bi di ñëw nga gis koo xam ne surtout suñu euh, euh, réewu taax yi sama genre bi ñoo fiy nekk seen bopp yi dépense moom moo ko ub yaa ngi topp si tali bi di dox xamoo ne sax yaa ngi ci digg tali wala nga def ni mu la neexee nga gis VDN nga ne da ngay traverser ni mu la neexee ci digg tali bi mu ngoog wala nga gis si VDN euh, euh, fii la seen seen kii bi Mamadou Fofana seen yoon bi nga xam ne day jékki-jékki lëndëm jékki-jékki ñu taal lamp VDN 3 ñu ngi taal lamp ñu ngi koy taal mais avant ñu koy taal gis nga mm-hmm. l' accident yi bari yi fa donc les responsabilités sont euh, partagées yéen kaay bi daal dina ci dikka ah, ci l' accident yi métti yi des mesures beaucoup plus énergie énergiques ñu ngi koy xaar ci am ndajam conseil des ministre bi nga xam ne war nañ ko woote ci wàllu dem beex euh, dikk bi ngir nag man a améliorer fluidité trafic bi ak garantir la sécurité des usagers charrette ak pousse-pousse dañu koy tere ci yoonu euh, BRT. loolu mooy dëgg fa dëgg la nee nañ leen nañ leen ko yéen borom charrette yi. non noonu dañoo war a dem. BRT bi wax fa dëgg neex yàlla. Mm-hmm. yoon bi bàyyi leen tax BRT. mooy dëgg. ñoom borom charette yi borom pousse pousse waaye na xam nga sama zaan gi fi nekk. Crédit Mutuel du Sénégal FONGIP y a-t-il deux poids deux mesures sur cette affaire euh, Ndem Dieng bi nga xam ne mooy numéro 2 bu Aïda Mbodj daanaka woolu nañ ko waaye bàyyi nañ ko mu dem wax ca gën a guyam. Mm-hmm. nañ ko bàyyi ko. amul benn mandat d'arrêt international bu nga xam ne am na si dossier bi comme ni ñu ko doon waxee. waaw yéen bi daal na euh, weddi li nga xam ne moom mooy ay tuuma les échos. accident tragique sur les routes du Sénégal Jean-Baptiste Tine jël na ci ay matukaayam joxe na baaraam ñépp nag nee na du ñu bàyyee noonee faw ñu jël si ay euh, matukaay il y a les conducteurs les policiers les gendarmes les services techniques policiers yi nag xam naa loxo si poche bi lañuy la ñuy ñaaw léegi dégg naa sax ne léegi dañuy am ay caméra ñoom ku si nekk pour ngir nga mën a xeex euh, loxo si poche xam nga boo ma jàppee rek mën am lu gën a këmpal nga dem. ñoo yor caméra. ñoom policiers yi xam naa am na nu ñu koy organiser nag. pour lan pour boo jàppee amul kii la lépp na lépp aw ci yoon. waaw ñoom ñoo koy encaissé di. ah mais xam nga léegi affaire bi dañ ko kii da ngay da ngay da ngay scanné fay. Hmm. waaw nañu scanné fay. waaw léegi su ma nee affaire bi su ma nee xaalis bi yow bàyyil ma ko ci may mayga bi fee. ci tànganaa bi maa ngi ñëw. foo foo may caméra comme ni kii di wax dangay kii da ngay samp. waaw lii euh, war ngay neex. taxi calendrier di waaw ñu ne da ngay xëy samp boo sampoo moom am nga jàmm. maanaam da ngay xëy. waaw dafa montable lay laaj 1000 francs wala 2000 boo xam ne boo sampoo et puis kenn dootu kenn la kii. Hmm. man man na mas naa jiitleex benn kii euh, tëngeej fële euh, benn tali rek benn ruq foofu daal euh, waa ji policier bi kii ko mu nekk non maa ngi ñëw maa ngi ñëw continuer dem si kii bi waa yow policier bu la arrêté nga naan kaan maa ngi ñëw. ce qui veut dire am ngeen benn affinité bi. xam nga si circulation bi. Euh, loolu na xëj na moom la bëgg xeex moom Jean Baptiste Tine te jamono ji mi ngi ci Modou Lo les échos yéen kay daal na ci dikk dikk ci parcours am mu nekkoon koo xam ne daanaka ko xiiban la woon. ba tey ji nag mu nekk roi des arènes. donc lu yàlla man na lu ne. waa fii moom yàlla mën na lu ne bu ne waaw lépp lay soppeeku. da nga jàng ca biir. waaw lépp lay lépp lay changé euh, VDN bi nag benn doo daaxee lañ fi gisoon. course poursuite ben moto course poursuite moto un policier et un gang bon nga xam ne ñoo doon dàqante ci tali si VDN bi ba am ñi nga xam ne gang bi am na kenn ku ci loru Sud Quotidien grand oral dans une assemblée nationale sous contrôle de l'opposition ndax quoi qu'on dise opposition bi fii ñoom ñoo en majorité à l'Assemblée nationale sont au défi de la majorité qui di Sud Quotidien faut le dikk

nous sommes pour la reddition des comptes car toute personne en position de responsabilité doit rendre compte ce que je redoute c'est qu'il y ait un règlement de compte ou une manipulation de la justice d'autant plus que les rapports ont été publiés depuis longtemps Comme gisuñu le rapport donc rapport est-ce que avez euh, une communication avec le le quotidien ñëw ci li nga xam ne dafa tiitalaane la. ANSD daal dina koy wax xëy na wax na wax na lu ñëpp xam ba pare. ndóol gi moom. ndóol gi dafay gën di màgg. dafa gën a yokk ndóol gi day gën di yokk ci ci ci ci réew donc mu ngoog le quotidien daal dina ciy dikk nee na boo leen bëggee dégg dëgg de ndóol gi ci réew mi cinq cent mille nouveaux pauvres ci diiru ñeenti at yi la ñu wàññi cinq cent mille hmm. ñoo xam ne dañoo ndóol ñu yees hmm. yokk ci lu mu ña dooloon ndooli démb yi ak ndooli tey yi la ñu boole. diggante 2011 ak 19 ñëpp nañ 1 million. daa bokk bi si ndooli tey yi. waaw dégg nga Mbambey. yokk nañu 1 million. diggante 2011 ak ay 2019. ci nguur diggante nguuru Abdoulaye Wade ak Macky Sall dañoo yokk 1 million 5 à 6 millions. Hmm? waaw tey mooy yokk mu amaat 500000 encore xam nga lu tax léegi on ne parle plus de pauvreté on parle d' extrême pauvreté. d' extrême pauvreté extrême la ñuy wax. waaw alal waaw ñu riche tey la ñu gën a bëri nombre ñu riche. mais hmm. pauvre tamit tey la gën a yokk. ak les nouveaux classe moyenne bëreetul. amatul ñu digg dóomu bëreetul digg dóomu amatul bëreetul waaw bëreetul waaw. soit da ngay pauvre rek. da ngay ndóol ñii ndóol ñoo gën di ndóol. waaw. ñii ñii am di gën di am. et li gën a garaawal ndóol bi mooy coronavirus bi. mais am na rapport bu ci Oxfam def. ak yeneen kuréel ñi nga xam ne dafa fekkoon ñu am alal seen alal dafa yokk. ah waaye corona bi am nañu soxla soxla. voilà suñu fonds force Covid 19 yi ñuy dajale woon jox ko nit. Mhm. jox ko yenn ministres yéex yi ñenn ñi. Mhm. ñu war cee doxam. Mhm. fa lañ joxe ñenn ñi riis. da defe ne chauffeur boobu da yor carte gabam fu mu nee rëdd. kooku riis joxewul riis. waaye ñu ngi si rapport ah ñu ngi en ah, rapport yi. très bien. yàlla baax na en ce moment nag John tamit mi ngi mi ngi jaale. en dafa toj sama portable daa toj lii si xam nga ni lii lii si cinq mille man man si cinq cent mille dóoli ah laa bokk mm. toj bi écran bi di tuuru di yéeg man moom xam naa sama bopp man maa ngi ci cinq cent mille pauvre yu yees yi contrat yi dooli nga ci morom dooli tey dafa am dooli démb ya ak dooli tey ya dooli tey dooli man man dooli tey la ay faqiir quoi waaw faqiiru tey ak faqiiru démb ya loolu tey. léegi faqiiru quatre ans yu mujj yi xam naa si la parce que man téléphone bu tojee nii ma war koo yor. léegi téléphone bi sax gudd na non ëpp na un an yow tam. ëpp na un an lii nii toj. def na deux ans toj toj yi ak écran bi tuuri bi te écran mi ngi gën di yéeg day jékki-jékki du ma gis dara. du ma gis dara. li ñaaw les ménages tenus par les femmes. waaw parce que na jigéen ñi léegi ay jàmbaar lañu nag de. ah loolu moom biti la fanaan naka jekk. ceinture dafa démissionné. naka jekk. sër daal dikk. naka jekk ñoo yor kër yi. nee jigéen ñi léegi ñoo téye kër de. naka jekk nag. jigéen ñoo gën a jàmbaat ci kër yi de. sans son maire décédé donc Rufisque Ouest sans mort yéenekaay bi daal na ci dikk Alioune Fall bi nga xam ne daanaka gëwma nañu amaat ku mel ni moom foofee sa Tëngéej Le Soleil yéenekaay journée de mobilisation citoyenne et de l'arbre du 3 au 4 foofu la génne jëmbatum garab lañu woote jamono jooje ne daanaka mën nga dem Odiadel. ana ah eh, dootoo bàyyi ma ma ma wax ci kii bi. c'est que. Ah, ok. ci la ci la nag. l'info daal di dikk ci non non euh, jëmbatum garab bi. xam naa bés bi moo wàññeeku. section de recherche de Kër Massar dañu ko woolu moom altine euh, euh, jéggi Diop ani lan moo waral ñu convoqué. yéene bi bañ a def passation de service. waaw voilà moom si la dikk. mu ngi ko doon jot nañ ko convocation pour passation de service mais ñëwul euh, euh, mom daal dina ci euh, du ñàkk altine dana wuy ji l' évidence kay kaay fa la dikk ci jéggi Diop défi son ex ministre daal di koy qualifier lan de né politique de Bambay wa kumuy wax né politique de Bambay Bambay le ministre de l'agrofinance agrofinance quoi de la microfinance. voilà euh, le peuple quotidien dik na ci Barthélémy Diaz lu mu tontu Ousmane Sonko kon na fu mu nek ni tàmbali nañu. Ousmane Sonko euh, Barthélémy Dias da ko tontu euh, ci euh, voile bi nga xam ne daanaka dañu ko nee dootuñu nangu ñu koy tere moom Barthélémy Dias am na lu ko tontu ndax dafa jàpp ni ko nga mu ciblé moom mooy école privée catholique yi moom nag Barth moom ku ko xam-xam ne moom. tontom moom mi ngi si tuñ. ONG. mu ne ko tontom mi ngi tontom mi ngi si tuñ. données personnelles. si mhm. ginnaaw xanaa yow la. Oja foofu la génne. niroo génne xam nañ niroo mais seulement dafa ma nel na. soriwul ah Mouhamed Fofana Mamadou Fofana la. kii lay gën a niroo sax Thierno Bocoum. non foofu si koo lay nirool. waaw Mamadou Fofana lay gën borom wut sa wut nga dëgg wut sàccee. moom lay nirool waaw. wut sàccee la bokk ci doon